ak actu di jour lu ci gën a fës juróom-ñaari atu kaso la ñu teg si ndodd Awa ndaw gannaaw ba mu wannee loot rek juróom ñeenti weer ba noppi accouché si néegam dal di takk morceau si baatu liir bi xojjee ko ko rek ba mu si ñàkk bakkanam benn waay bi wuyoo si turu Xasan moo xiif lool ba amul rek lu mu def si biiram tax ba mu sàcc ñaari banaan daal di koy lekk ñaari banaan yooyu nag ñoo ko jural rek lu mu duloo fàtte ba faw si àdduna danañu si dikkaat politique daal di nañuy bàyyi 15 membres collectif ñoo lànk yañu ñu teewoon ca commissariat central bu Dakar waaye ñoom nag dañoo fas yéene rek tollanti la ñu leen teewee woon ni ki ëllëg si àllarba gi maam Mactar Gueye daal dinay xam ne lu yéeme lool si soirée privée bu rangu amaloon donte sax rangu jéggalu na leen loolee sax tax ba mu risqué ñaari atub kaso moom ex animatrice Sen TV bi eh, bu loolu yembee nag tàggat yaram la ñu siy toftal ak combat si diggante Modou Lo Ama Baldé nga xam ne nag eh, kii di Ama a également boobulee combat laata rek ñu koy tëjee ko wàllum football ak doublé Keita Diawo Balde bi yaatal wi gannaaw bàkk bi lay doon ngi leen di nuyu amee internetu Dakar Buzz di leen dalal jàmm ci actu du jour ni ñu leen ko diggee rek la ñu koy daal di defee dañ koy dooree rek ca ñaari tari foofu nag benn taximan bi wuyoo ci turu Moussa Dieng la ñu fekk rek mu pendre boppam ci fa mu dëkk di ko ñu waalo nekkee rek ci ñaari tali moom nag taximan boobu xaru mi ngi am 47 ans maanaam ñeenti fukki at ak juróom-ñaar bu ñu sukkandikoo sax ci suñuy suuf moom Moussa Dieng xel mi rek dafa annoncé police scientifique bi ñu dal di ñëw def seen constat ba noppi relevé ay indice laata sapeur pompier yi di yóbbu néew ba taximan boobee ñu dugg Vélingara wax sa apprenti bus ba courant masse ba mu ñàkk bakkanam moom nag Cheikh Fall lay wuyoo moom nga xam ne da doon wàccee rek clients yi seen i bagage waaye nag bu ñu sukkandikoo si suuf si gisul woon fii lu courant bi si ñoonee rek la ko dal di massé mu ñàkk bakkanam si saa si néewam bi nag daal nañ koy yóbbu ca morgue bu juma centre 1 bu nekkee ca commune ba bu ñu sukkandikoo ba tey si source bi chauffeur bus ba dem na rek gisee ko gendarme yi ngir lu ñeel enquête bi addu si mbirum Awa Ndao comme ma leen ko junjee si ndorteel li moom nag gannaaw ba mu wonnee loot eh, juróom-ñeenti weer eh, awa daa daldi rek wasin eh, ne si néegam ba mu ca pare mu dem kër docteur ngir ñu jël en charge bébé bi Awa Ndao nag nga xam ne moom moomee femme divorcée la am ñaari doom daa daldi rek faat bébéem boobu gannaaw ba mu takkee morceau si baatu liir bi xojee ko ko ba mu ci ñàkk bakkanam daa di koy def si ab sachet recherché ba noppi jébbal ko famille yu baayu doom joojee loolee tax ba muy jànnoo ko démb procureur de la république ca chambre criminelle bu ndakaaru si noonu ñu dal di teg rek juróom-ñaari at si ndoddam boole kook ñeenti at yamu fa jot a tëdd addu si mbirum euh, Yoba Balde di ndaw suñu tàggale bopp beeg yaram wi ca Kolda ñu wéyal nag enquête bi ba tax rek euh, ñu interpellé suspect bu njëkk bi kookee nag du kenn euh, dul kuddul meilleur ami maanaam rek xaritu benn bakkanam bu ñu sukkandikoo sax si libération online gendarme Kolda yu yor rek wàllum enquête bi daal di nañuy téye xaritu victime boobee ngir rek wàllum enquête bi ba tey si fàttali nag Yoba Balde daa disparaître rek depuis jeudi laata ñu koy gis mu ñàkk bakkanam si anam bu bu doy waar gannaaw ba ñu tàggalee rek bopp beeg yaram wa ca Saare Yero Jaawo wax tamit ci mbirum Coumba mi ñu waxoon rek ni dañu ko kidnappé ba mu euh, feeñee nag ca diwaanu Touba mbir mi nag dafa mujjee louche gannaaw ba benn source policière xamle ni rek Coumba Kane ay atam toll si 36 ans lu mu wax rek ni dañu ko kidnappé dara amu si si noonee mu rek xippi ay gëtam di janoo ko ay dëkkandoowam ba tax rek mu dal di jóge ko si kër ga muy sëy nekkee foofee ca kër Mbay Fall leneen tey si talaata gi ñaar fukki fan ak benn si weeru janvier bi ñu nekk la ñuy jël décision ca chambre criminelle bu Ndakaaru eh, si mbirum rek Fatoumata Mactar Ndiaye bu ñu faatoon fukki fan ak juróom-ñeent si weeru novembre atub 2016 si kër bu nekkee foofee ca Pikine moom sax Fatoumata moo nekkoon rek cinquième vice présidente conseil économique social et environnement eh, ku ko faat nag du kenn ku dul chauffeur am bi wuyoo si turu ba Samba Sekou Dia Sow eh, si procès ba ñu doon amal sax bi ñu génne président chambre de commerce laajoon na rek Samba Sow kàddoom bu ko wax ba tax mu def li ni mel mu xamle ko moom Samba Sow nga xam ne ay atam ñu ngi toll rek si 33 ans waaye nag loolee teewul woon rek ba ñu tegg si ndoddam liggéeyub sanca bañ moom Samba Sow si lu mu faat rek Fatoumata Mactar Ndiaye ba noppi di jéem a faat tamit Adama Ba di doomu Fatoumata Mactar Ndiaye avocat Euh, partie civile yi nag 500 euh, millions ci suñuy koppar la ñuy laajandi rek comme dommage ak euh, intérêt. ma junjoon leen ko léegi di mbirum Xasan Samb mi ñu arrêté ba noppi placé ko sous mandat de dépôt moom nag lundi la ko tribunal des flagrants délits bu Dakar condamné ñaari atuba kaso gannaaw ba mu sàccee ñaari banaan bu ñu sukkandikoo sax si les échos Assane daa xiifoon lool te amul rek lu mu def si biiram ba tax mu sàcc ñaari banaan yooyu daal di koy sànni si biiram moom nak daa bàyyi rekk ba jaaykat bi bougé mu dal di jël rek ñaari banaan daal di koy lekk waaye nag malheureusement jaaykat bi da koo dal di justice si noonu rek ñu weccante ay kàddu laata ñuy yegg ci loxo yoon si audience ba sax Assane nekkul woon à l'aise waaye nag avocat bi tamit mu ngi doon jéem a justifier ak client wam bi gannaaw ba mu xam leen ni dafa xiifoon rek moo tax mu def li ni mel te tribunal dafa war a dawal yërmande waaye teewu rek ñu tekk si ndoddam moom Assane ñaari atub kaso avec sursis politique euh, doore kooku waa collectif euh, ñoo bañ euh, ñoo lànk ak seen 15 membres ya ñu teewoon ca commissariat central bu Dakar te dara yóbbu leen fa lu dul ay flyers ya ñu doon séddale ñoom nag caat fu malade ak ñañu jàpp ñañu jàppandooroon daal dinañ leen di bàyyi waaye bañu ñu leen bàyyee nag ba noppi activiste ñoo lank yooyee dañoo lancé rek ab mot d'ordre bu bees pour mercredi ñoom ñooñee nag caat ak i ay ñoñam nee nañu rek dañu joxe waat mercredi di ëllëg ay flyers flyers euh, ci mbedd Dakar yi tuddee ko rek flyers fépp. E ba tey ci politique APR di parti présidentiel bi daal di nañuy réagir ci annonce ancien chef de cabinet njiitu réew mi di Moustapha Diakhaté moom nag quatre heures gannaaw ba mu xamle création wu ab courant ci APR duppee ko rek man koo taxawu sunu APR la apériste yi daal di koy jël seen décision daal di koy jëlee euh, foofee ca APR gannaaw ba ñu ko waxee rek ngir mu implanté ji courant boobee euh, feneen feneen fa mu xam fu wuteek rek APR wax ci visitu Macky Sall ba Londres nga xam ne rek benn dam moo ko yàq gannaaw ba mu yuuxu rek ba fu batam toll ne libéré Guy Marius Sagna ci ba njiitu réew mi di doon liir rek discours am bi ci kanamu ressortissant sénégalais ya fa nekkee Pastef nag daal di nañuy xamle ni dam boobee di wuyoo ci turu ba Mbayang Camara ci ñoom la bokk maanaam militante Ousmane Sonko la. leneen si ex animatrice Sen TV bi di Rangou la ñuy wax moom nag daal dina jéggalu ay waajuram sénégalais yi ak Mame Mactar Guèye mu xamle rek lu bees tàkk si soirée privée bu Rangou organisé woon donte sax daal dinañu koy jéggalu moom nag vice président wu ONG Jamra daa xamle rek ni si benn audio ni autorité maanaam fukki autorité ak benn demoon nañu rek si soirée privée boobee Rangou organisé woon le 11 janvier bi ñu génn la tey euh, si boobule sujet donte sax jéggalu na sénégalais yeeg Jamra Rangu euh, setagul si bile mbir ba léegi gannaaw ba police di wëyandee liggéeyam si moom bu ñu sukkandikoo si l'observateur ex animatrice su Sen TV bi dina tëdd rek ñaari at ba kaso soo moytuwulee si bi ñu ko reproché rek lii di fee yi mën nañ ko sax toppandi si ñaari mbir di diffamation ak wa ila sax attentat aux bonnes nekkul nii rappeurs yi kese ñooy clashante waaye tamit animateurs yi Abba No Stress nag daa dinay xamle ay dëggam ci Snapchat di ci xamle performance yi mu am ci ñaari domaine am yi di ci sàndiwaale tamit ay xeer ñu koy critiquer ba mu sonoppee sax moom Abba la jublu rek ci animateurs yi daal di def benn vidéo di ci xamle ni ñii di animateurs yi ñooy plat préféré laata muy def tamit benn postu nga xam ne rek képp ku muy ku jël rek bu ko liiree dana ci xolam mën na see jóg moo nekk sax boobulee post ngeen di gis gis ci écran bi si ba ñenn ñi di wax euh, revanche am ak Eumeu Sène moom Bombardier mi ngi lune de miel moom nag euh, Bombardier da dal di takk ñaareel mu war a def rek 15 jours booba ak léegi loole tax rek euh, ba mu dem lune de miel ak ñaareelam boobu ngir dund rek banneexu mbëggeel personnel Dakar Buzz yëpp ñu ngi koy souhaiter heureux ménage wax tamit ci combat ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé donte sax ficelé guñ seen combat boobee officiellement waaye nag Ama Balde mi ngi koy waajal bu baax gannaaw ba ñu koy xaarande moom tamit ca INSEPS bu Paris si ay fan yu néew lool ngir rek mu waajal boobu boobule combat mu war a jano ak kii di moo du xarañ loo ngir rek mun a jël boobu boobule roi des arènes.